docteur Assane Diop ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. yow yaay euh, njiital syndicat pharmacien privé yu Sénégal ñu am mbégte lool dalal la euh, ci matinalu tay bi euh, docteur ñu door waxtaan wi ak bëccëg bi nga xam ni pharmacien yi lañu ko jagleel ci àdduna bi ñaar fukki fan ak juróom weeru septembre bi lañu ko doon màggal ñu bëgg waxtaanee surtout industrie pharmaceutique ci Sénégal tey naka la def. waaw maa ngi leen di gërëm si invitation bi di nuyu. ñëpp ñu ñuy déglu li mën a wax ci industrie pharmaceutique au Sénégal mën nañu wax ni dafa feebar. Mm. dafa feebar ndax euh, Sénégal boo jëlee Afrique de l'Ouest moo fi jëkkoon am industrie ñu ngi fàttaliku temps avant Pfizer même Parke Davis ak yooyu mais tey si bu ñu limee juróom ñi fi nekk kenn ki tëj na kenn ki si la jëm keneen ki pare na léppam mais mënul jaay ay garabam si marché bi. peut-être ñeneen ñaari ñooy clépin clopin boo jëlee sax institut Pasteur di tax xëy amul problème trop mooy pour le moment benn vaccin lay def vaccin boobu xëy na Afrique yëpp te am na préqualification ñu ngi koy jënd. Hmm. lu ñu mën a wax daal ci wax bu gàtt mooy industrie pharmaceutique sénégalaise dafa feebar jamono yi ñu toll. dafa feebar lu koy metti li koy metti bëri na waaye mën ñu ne mën nañ ko tënk ci ñaar mooy li mañ tudde produit maanaam garab bi génn seen usines yi hmm. ak marché bi niñ koy organiser au Sénégal mën nañ ko tënk ci noonu garab bi génn si usine bi bu génnee dafay cher li tax mi cher mooy fi muy war a jaar yëpp dina utiliser énergie Sénégal énergie bi moo gën a cher daanaka ci Afrique de l'Ouest ah. xëy na yi siy dem wala bokk boo commencé sax machine yi ngay jënd pour defar garab bi impôts yi taxes yi surtout TVA bi dafa élevé te sax ñu ngi naan même TVA bi ñaar la am TVA sur douane am douane am TVA DGID maanaam dafay mel ne ñaar yoon lañ fay TVA. Mhm. yi si yi si ànd pour defar garab bi bu ci nekk dañ ciy fay taxe. Mhm. même carton bi ngay utiliser pour defar garab bi pour dugal ko garab bi dugal ko ci biir dañ fay taxe ba tax na garab boobu bu génnee dafay cher bu fekkee ne da nga ko teg si wetu garab bi nga xam ne dañ ko importer mu jóge Asie. Mhm. wala yooyu. parce que li tax mu ñun ñu am problème mooy garab boo importer mu dugg Sénégal du fay TVA am na taxe yu bëri du ko fay. ndax dañ naan produit social la. waaye yow mi bëgg defar garab lépp li ngay soxla pour defar garab bi daanaka da nga siy fay taxe loolu premier problème la ba tax na garab boobu bu génnee pour nga jaay ko dafay jafe ndax dina am ay naataangoom yu muy fekk ci marché bi mhm. yi nga xam ne euh, ñoo koy gën a yomb léegi nag di dugg ci marché boobu dëkk yëpp yi nga xam ne fexe nañu ba seen industrie pharmaceutique taxaw dañuy protéger seeni producteurs maanaam dañuy aar ñi fa nekk te di liggéey aar boobu li tax mu am solo mooy ñooñu dinañ créer emploi dinañ fexe ba assurer garab bi am maanaam disponibilité qualité bi tamit dina am te am leneen Sénégal tey li muy li muy suñuy wax sur le plan balance commerciale li gën ci réew mi en devise ay mën nañu wax téeméeri milliards dinañ ko génnee ci réew mi pour jëndee ko ay garab donc bu nu protéger ñi fi nekk ba loolu des loolu ay avantage la pour l'État. Mhm. ba tax na dañuy soxla marché boobu ñu structurer ko lépp lu ñuy defaree biir Sénégal ñu xool nuñ koy protéger ba d' abord bu ñu si li ñu tudd léegi bu ci état bi bu ci état bi jàppalee ba garab bi prix bi wàcc ñu fexe ba marché bi aussi ba fu produit bi duggee mu mën a mu mën a concurrentiel maanaam mu mën a fexe ba kooku jaay parce que nag kiy defar bu supporter charge yu bëree ba defar ba pare te mënul jaay loolu mooy problème bi globalement loolu moo tax entreprise yi nag Sénégal am problème. léegi euh, lu aju ba tey ci wàllu garab yooyu yi nekk Sénégal bu ñu ko méngalee ak yi nekk biti réew wàllu qualité euh, lan la ñuy gis. qualité wu. garab yi euh, garab wala garab li ñu si mën a jàpp mooy ak fépp ko defaree bu fekkee defar bi jaar na yoon rek qualité bi mi ngi ci lu tax ndax dañ koy saytu déjà yow boo defaree sa usine balaa ngay commencé dañ koy saytu ba xam ndax usine bi mi ngi am na norme yi nga xam ne teg nañ ko ndax mi ngi ci. Mhm. garab bi aussi su paree garab bu usine def balaa mu koy jaay day am encore un deuxième contrôle bu dee garab bi ñu ko soogay defar pour la première fois da ngay dem jox ko jox ko direction de la pharmacie ministère de la santé ñu saytu garab bi ba xam ndax baax na donc monde bi yëpp loolu mooy norme Sénégal moom dañu nangu ne garab bépp bu garab bu génn ci usine yi qualité bi c'est irréprochable maanaam amul problème qualité qualité bu baax la léegi est-ce que ci wàllu taxe yu cher yooyu yéen waxtaan ngeen ci ak kilifay réew mi ngir ñu wàññi ko bu fekkente ni li nga expliqué ni yëpp moom moo ci nekk maanaam xaas bi ñuy génnee di ko jëndee garab bitim réew euh, yaakaar naa ni levée taxe yi war na ko gën a mën a yomb. war na gën a mën a yomb te seen pharmaciens yi en général ak tey jii ñi yor industrie Sénégal yàgg dañ ci wax def nañ ci ay lël def nañ ci ay bind nañ ci jox ko autorités yi ay atténué li am solo nag mooy dañu dégg vraiment chef de l'État wax ci lu bari te ñu ko ci gërëm wax na ci waxaat ci ba waxaat ci ba fan yi yëpp sax li ñu remarque tamit mooy bari de ministères yi nga xam ne ñu ngi ci def ay ay ay liggéey ay travaux donc am nañ yaakaar ne li ñuy wax yëpp léegi dégg nañ ko li des mooy nañ ko jëfe si jëfe boobu am dégg nañ ci ay annonce parce que dégg nañu ministère de l'économie ñu ne taxes yi dinañ ko lever en tout cas traitement maanaam yi ñuy jëfandikoo pour garab yi hmm. ak xëy na sax machine yi nga xam ne moom ngay jënd pour defar garab mais ba léegi ñu fi nekk di di defar garab ba léegi ñu ngi fay tax yooyu donc jàpp nañ ne nekkagul en en vigueur hmm. ay annonce la am nañ yaakaar ne na comme c'est une volonté du chef de l'État dinañ dem au-delà de ces annonces là maanaam euh, euh, loolu ñuy wax dinañ ko def waaw dinañ ko doxal mu nekk lu dëggu Euh, ñu mën ci teg suñu loxo teg suñu bët. d'accord léegi yéen pharmaciens yi fii ci Sénégal lan mooy seen jafe-jafe yi gën a tar wala yi ëpp yi ngeen di jànkonteel. waaw suñu jafe-jafe yi euh, bari na mais mën nañ ci lim bu jëkk bi te ñëpp xam nañ ko ñu ngi ci wax ay at mooy jaayub garab yu bon yi ci biir Sénégal loolu vraiment lu ñu lu ñuy métti lu la lu ñuy ba léegi mi ngi fi te jaaxal nañu lu tax autorité bi réglé wu ko mais ñu fàttali ne. bu pharmacien yi di kaas garab yu bon yi du pour ñoom pharmacien dafa am monopole état moom la dénk garab ba tax na lépp li nga xamee ne mi ngi ci du dëgg dañ koy war a dañ koy wax parce que dañ pour aar population bi la mhm. garab yu bon yi li muy lor ci maanaam ci wér-gu-yaram ak limi muy am li muy yàq ci économie Sénégal mhm. kenn mënu la wax ni mu toll loolu mooy premier problème bi nga xam ne yaakaar nañu yaakaar ne état bi war na ci gaaw a régler te ñu ngi ko koy laaj ñu ko koy demander encore une fois mu gaaw si mhm. xam nga dëkk yëpp ba sax Afrique tey dañu créer l'AMA mooy agence africaine du médicament mais garab toujours dafa am benn benn benn agence bu ñu koy jox maanaam benn service bu kilifteef bu ñu koy jox hmm. mu koy saytu di ko topp de bout en parce que garab dafa doy waar. Hmm. Sénégal agence loolu ñu koy tuddee fii direction de la pharmacie et du médicament. problème bi am mooy direction boobu dafa néew doole. néew doole parce que dafa dépendre si benn division mu dépendre si ministre bi boo demee dëkk yi xam ni léegi da presque dañ koy génnee mu am li ñu tuddee autonomie maanaam mu mu muy liggéeyal moom boppam hmm. moom boppam boobu dina ko tax liggéeyam mu def ko liggéeyam nag dafa am solo parce que tey képp ku ubbi li ñu tuddee établissement pharmaceutique maanaam ki yor pharmacien hmm. ki ubbi di importer ay garab di ko distribuer waat ki ubbi pour defar garab hmm. ki ubbi pour lépp lu jëm ci mbirum garab si établissement yooyu moom moo fa war a dem inspecteur lu fay dul yoon ñu tere ko garab buñ fa génnee ñu saytu ko balaa ñu koy jox askan bi kooku bu amul doole dafay doy waar donc loolu aussi beneen problème la te moo tax xëy na sax garab yu bon yi bari ci réew mi parce que bu amoon doole bi mu am di mën na ko le beneen problème bi ñu am mooy la formation parce que tey boo xoolee université bu formé ba pare ñëpp presque pharmacie la ñuy dem mais loolu formation ay emploi la mais am na beneen phénomène buñ ñu ci gis mooy léegi ñu ni écoles yi formé pharmacien dañoo bëri te est-ce que ñun ñëpp bu ñu génnee dinañ am xarit bi ñu war a am hmm. et cetera cetera beneen élément bi mooy formation bi dëppoowul léegi ak bitti bi li ñu soxla si yenn côté yi du yëpp nag parce que tamit université Dakar ba léegi am na université bu ñu bu ñu bu ñu respecté la hmm. partout dans le monde mais am na tey jii comme industrie pharmaceutique boo ko soxla woon wala nga defar vaccin boo soxla woon ay ay spécialiste pour loolu xëy na foo nga génn bitim réew pour am li nga soxla yëpp hmm. tuuti nga fi am au Sénégal donc loolu kàngam yu doy ci wàllu woowu amuñu kàngam yu doy ci wàllu woowu voilà comme ni nga ko waxe hmm. daanaka loolu la xëy na mën ñu tënk ci loolu si problème majeur yi nga xam ne pharmacien tey moom la ñuy rencontré. d'accord ci wàllu recherche nag est-ce que am aussi ay kàngam yoo xam ni dinañu mën a gëstu ndax jamonoy mbas mi ñu nekk wane na ni faaw ku nekk di jéem a wutal boppam euh, saafara. waaw su wàllu recherche am nañu ay kàngam mais recherche yemul ci kàngam rek. Hmm. recherche dafa laaj dafa laaj moyen dafa laaj jë ay yi ngay jëfandikoo te dafa cher. Hmm. léegi nag recherche du garab bi doon nañ koy jëfandikoo si si biir nañ ko essayé ci maladie loolu recherche la mais taxul ñuy wax wax recherche médicament dafay commencé si molécule bi xam kenn xamu ko presque nga jóge foofu di sélectionner di liggéey di kat ana def analyse laboratoire yi def ko analyse si ay bàyyi ma ba xam garab bi lii mën na ko faj loolu li muy laaj si alal dafa bëri. Sénégal defagu ko lu ñuy wax Sénégal defagu ko Afrique sax daanaka amu fi. Maodo déggoon nañ fi ñu ngi recherché luy faj coronavirus. Euh, ci jamono mbas mi dégg nañ ko fi mooy mooy mooy mooy li may wax sànq. Hmm. xam nga garab bu ñu xam ba pare ñu ay nit. maanaam créé wuñ dara lu bees seen i feebar hmm. waaw. maanaam li ci daal xëy na mooy garab bi xamoon nañ ko ci sibiru waaye léegi gis na ni mi ngi faj leneen hmm. mais garab bi du boppam du bees recherche nag day indi lu bees tàq loolu foofu la xëy na amaguñu doole bi mais kàngam moom Sénégal ñàkk ko mais xam nga kàngam doyul kàngam boo mënta indi takkat te joxoo ko uti yu mu soxla de xëy na du génne dara ci ci ci li nga xam ne dina am njëriñ pour population bi. d'accord léegi ñu ñëw ci cambriolage yi nga xam ne euh, gisoon nañu fi ay temps mu tar lool ci yenn pharmacie yi ñuy daaj di sàcc seeni garab euh, di yóbbu est-ce que loolu fi mu ne euh, am na dal wala ndax jeex na. am na dal waaye jeexul am na dal waaye jeexul ndax bu ñu jàppee at bi ñu nekk te jeexagul rek mën nañ fi lim juróom benn jàpp juróom ñaari pharmacie nga xam ne cambriolé na leen ci at bi. foofu tamit xëy na liñ ci am solo li ñu mën a wax mooy ñun syndicat bi góorgóorlu nañu ba waxtaan ak gendarmerie waxtaan ak police waxtaan ak douane de sorte que ñun ñëpp ñoom léegi ñu bokk presque léegi liggéey bi bis mu ne ñu dégg ci douane jàpp na ñu hmm. dugal ci garab ak yooyu mais daal cambriolage moom pour tontu li nga laaj ñu ngi fi ba léegi waaye nag cambriolage du fi jóg tant que lu mel ne kër sëriñ bi jógu fi ndax su ma leeree ne su ma tojee pharmacie jël garab bi du mat ñaari waxtu ñetti waxtu am naa ku ko mën a jënd moo kandoo laa am donc ñooñu receleurs yooyu il faut ñu jël leen. d' accord léegi mbirum kër Serigne beeg njaayum garab nga xam ne baaxul muy trafic illicite bi lan la ci état def ndax euh, lii moom lu ñuy waxaat la rek waaye waxoon nañu ko fii waxati ko fii. waxoon nañ ko waxati ko état li mu ci def mooy xëy na signé nañu lu ñuy wax convention Médicrème loolu am na mais xam nga signé bi dafa am lu si topp mooy adopté bu ñu ko signé ñu adopté ko yóbbu ko assemblée mu jaar fi mu war a jaar ñu dugal ko maintenant suñu texte ba tax na ku ñu jàppati ñu mën la daan daan yooyu donc loolu boobu def nañ ko te benn paal ñu seqe gum des na lu bëri beneen bi mooy euh, dëgg la tey jii boo jàppee douane ñu ngi def liggéey bu rafet ci mbir mi police mi ngi koy def gendarmerie mi ngi koy def donc foofu moom am nañ ci ay résultats mais fi état bi vraiment defagul dara lu ñu gis ba léegi mooy ñi nga xam ne ñu ngi ni sàng ñu ngi ni fàng maanaam boo demee si marché Thiaroye boo demee marché Ocass soo demee marché euh, côté Kolda bi da nga fay fekk ñun ay grossistes maanaam ñi nga xam ne dañuy ñëw sax teg garab yu bëri di ay détaillants. Ah. ñëpp xam ne garab yi baaxul ñëpp di gis. kër Serigne bi nekk ci au cœur de Dakar mi ngi fi ñëpp di gis soo demee dëkk bu mel ne euh, Touba li fa nekk tey jii si dépôt illégaux maanaam ñu ubbi seen i boutique di jaay garab ñu ëpp boo boolee pharmacie nekk si xëy na fukki région wu wala. juróom-ñeenti région yu Sénégal loolu xel mënu ko nangu waxuma la sax farlu si nekk biir Touba rek mais boo leen dajalee ñun ñu ngi si lim trois cent vingt alors que tey boo jëlee région de Fatick région de Kaffrine yooyu yëpp boole ko dafa nekk ci farlu du mat trois cent vingt donc loolu aussi ñu ngi fi di gaañu état bi teg si bëtam ñu teg suñu bët te sotteegul d'accord léegi euh, lu aju ci wàll woowu euh, nga ne sànq euh, direction du médicament moom moo war a toppatoo loolu bu fekkente ni amul jumtukaay yu doy kon mën nañu caa dégg ne askan wi ñu ngi ci danger. waaw parce que bépp askan daal bépp bépp suñu bépp mbokk du dëkk biir bi yeewoo biir Sénégal jëndee fi garab feneen fu dul pharmacie feneen fu dul hôpital maanaam hôpital centre de santé yeeg poste de santé yi xam ne autorisé nañ leen yaa ngi si danger danger boobu nag xëy na boo demal kër sëriñ bi wala yooyu amul mais tey boo yeewoo Touba danger bi mi ngi ne gàññ parce que nag wax nañ ko léegi ki nga xamee ne boo génnee jàkkaarloog bëtu bi jaay garab ah kooku population bi effectivement ñu ngi si message bi ciy dolli rek mooy état bi jàppale ñu ñu xam ne garab le médicament maanaam dimension bi dafa am na njëriñ si économie bi am na njëriñ ci paj bi am na njëriñ socialement ba tax na ñu bañ ko jàpp comme bonbon invité aussi population bi que lépp lu ñu soxla ci garab ñu adressé wu ñu dem si pharmacien bi mu wax leen lu ci nekk ak naka la mooy gën fuuf ñu ku jóg rek ubbi sa boutique wala am sa benn enseigne rek nit ñi dugg fa di faju gis nañ fi ka dina farme bu yàggul xëy mhm. yal na yàlla musal si kaa yooyu daal di invité nit ñu daa bañ jàpp ne médicament rek lu ñuy jël la rek voilà sama lii metti na rek jëlee naa ko nii ñu jël ko comme un produit li nga xam ne am na njëriñ trop waaye noonu la mënee lore Euh, su fekkee ne jëfandikoo wuñ ko ni mu ko waree. Mhm. di gërëm aussi rajo bi bu baax a baax ci invitation bi parce que dañu soxla tamit di wax ak population bi ñu xam ñu leen ci gërëm ci liggéey bu rafet bi ngeen di def. jërëjëf docteur Assane Diop ñu ngi lay gërëm ci disponibilité bi fàttali ni njiital syndicat bi ëmb pharmacien privé yu Sénégal.